Moussa Diop nee na Sonko bu def doole day daanu si diggante ma Mame ni moom la parti li muy amaloon problème Sonko woo leen jubóole leen. mais tey daal nee na Sonko euh, si laa daanu la jëm. Baye Assane. Hmm? Sonko yàlla rek ko mën a daane. Mame Mbaye Niang non Moussa nee na oh, hmm? la de. waaw non du intellectuel réew mi intellectuel yi ko yàq parce que intellectuel yi ragaluñ yàlla li leen intéressé la ñuy wax. Hmm. intellectuel yi ñoo yàq réew mi nekk intellectuel jubóo ko gën. yaa ngi dégg problème bi mooy gis nga ay mbaamay ñaawoo ay dossier viologue yooyu yëpp amul njëriñ mhm. justice bu fekkee bëgg na jàmm am ci dëkk bi mhm. man dama gëm ne dëkk bi buy tàkk rek justice moo koy taal justice moo koy taal Ousmane Sonko mii ak fi mu toll tey ci politique ak espoir bi ndaw yi dese ci moom xam nga Ousmane Sonko même éliminé ko sax du intérêt Macky Sall mhm. parce que tey Ousmane Sonko tey boo ko éliminé noonu frustration bi muy jur loolu kenn mënu ko mesurer ndax koo xam ne tey ndaw yi lekkuñ ndaw yi naanuñ ndaw yi amuñ liggéey ndaw yi daan dem barsa barsàq léegi ñu ne dematuñ barsa barsàq léegi dañuy tooqaat 2024 waaw yaakaar juñ ne na nga koy tas jaaral la ko ci ay diffamation ak ay ay yëfi caaxaan hmm. waaw li ci kanam raw li ba